partout mu ngi doon circuler bu baax a baax ki nga xam ne dafa indi woon géttam foofu noonu ci euh, euh, daral bi nekk Sacré-Cœur mm-hmm. ñu gis ni da cee ñàkk jot a ñàkk 33 xar donc moom vidéo bi mën nañ ko dem seetaan tuuti mu expliquer les faits ni mu demee du ci kanamee après kenn ku nekk di ci sa xalaat comme euh, ko daan defee chaque jour rek 18 heures heure xontu xar yi jot ndax matin bi ngooñ lañ leen di jox euh, ngoon bi ñu jox leen euh, ripaas ñu xoojal leen mélange bi ak beneen saaku boo xam te ne bëgguma wax tur bi euh, moom lañ leen di xoojal donc moom lañ leen xoojal 18 heures et quelque ñu xoojal leen ko ay 5 minutes 10 minutes après ñu gis xar yëpp tëdd daanaka ñu perdre ci 33 têtes 33 moutons waaw yoo xamante ne ñun jékki-jékki daanu ñëpp jékki-jékki di kat di kat di xam nga waaw seen yaram yi di concentré wu ñuy lox waaw noonu daal la noonu noonu noonu daal la demee daal waaw mujj cee perte 33 moutons daal ko santé suñu nag bu baax. ñu leen doon jox aliment même alimentation bi moom la ñuy maintenir changé wuñ ko benn yoon liñ leen doon jox depuis une semaine lañ leen fi takk ndax vendredi bële lañ leen fi takk ba léegi te liñ leen doon jox ba démb moom lañ leen nekk di jox changé wuñ ci dara changé wuñ ci dara 40 moutons la ñaari paan yu ndaw la. waaw du kax du sax ay paan yu mag sax ay paan paan yële ngay seen fële paan yooyu la mm-hmm. li ñu leen di jox dañ koy jënd dañ ko jënd waaw saaku yëpp dañ ko jënd quoi waaw ay saaku ripaas la yoo xamante ne ay saaku ripaas la yu normal am te ne moom la éleveurs yu bëri fii di utiliser daal mm-hmm. waaw te boobu ba léegi moom la ñuy lekk depuis une semaine ñu ngi fi moom la lekk waaw mosuñu am benn problème franchement voilà ba démb daal ci lañ ko lekkee ci intervalle maximum quarante cinq minutes yëpp ñu daanu waaw 33 yëpp daanu am na sax yeneen yoo xamante ne ba léegi bàyyi bàyyeegu leen cent pour cent xaw nañ am ay séquelles quoi. waaw vétérinaire bi euh, ñëw na xool euh, bu mu xoolee tamit bon voilà quoi euh, mais gu ñu wax exactement ni lii moo leen rey parce que ñi nga xamante ne war nañu war nañoo soy coytu mbir mi mooy waa ministère de l'élevage ak yooyu ñëw nañ fi. ko dëgg jaar nañ fi ministre bi ci boppam sax jaar na fi may fekkuma. Aïcha euh, Mbaye waaw gis nga vidéo bi comme ni mu demee mooy ñu ko gisee. Uh-huh. mooy xar yi dañoo jékki-jékki bu yàgg moom nee na lim daan jox xar yi depuis une semaine moom la jox xar yi ba tey. Uh-huh. mooy lim leen daan jox mais dañ ko daf leen ko jox benn moment rek xar yi commencé kaddi kaddi. Uh-huh. commencé donc xamul lu lu leen rey lan la parce que mais lim leen liñ daan lekk moom lañ continuer di ko lekk. comprendre nga léegi neen waa ministère de l' élevage ñëw nañ jël nañ ay ñu war a jël ak yooyu yëpp pour ñëw wax expliquer ba xam lan la bu nekkee intoxication alimentaire la ak yooyu noonu yëpp après dinañ ko leeral mais li ma ci jaaxal ci vidéo bi xam nga mooy lan. mooy xari li li amul des bi ñuy kaddi kaddi. am na ci yoo xam dañ leen a rendi pour jël ndawal bi jox ko ñenn ñi quoi yenn yi ñu bàyyi la ñu dee mais yi doon kaddi kaddi est ce que waroon nañ ko rey jël ndawal bi jox la parce que lu ku xaar mi ah, est-ce que ndawal boobu noonu wóor na pour ñu lekk ko donc loolu noonu il faut il faut il faut même bu nekkul medd bi sax mais loo xam ne mi ngi kaddi kaddi lekk am mi ngi kaddi kaddi nga xamoo lan moo ko lan moo nekk ci moom merci beaucoup léegi beneen bi si topp mooy carton yi nga xam ne dañ koy jox xar yi ak yooyu est-ce que nekkul carton yooyu aussi tam dañ ko war a xoolaat parce que carton bu ci nekk ak la muy def mën a def asib mën a def leneen ak leneen ak leneen ak leneen ñu koy jël di ko daggate di ko jox ay xar ak yooyu kenn xamul nag lan moo rey xar yi parce que peut-être bu fekkee résultat yi génn mën nañoo xam li nga xam ne moom moo rey moom li ko dal metti na torop parce que xar yi am na ci ñoo xam ne joxoon nañ ko fayoon nañ seen prix ba pare am ñoo xam dañoo garder lu woon garder lu xar pour après ñoo fay donc loolu yoon yëpp mi ngi toll ci somme boo xam ni 4 millions 700. 4 hmm. millions 700 yoo xam ne mi ngi ci loosam moom waa ji donc mi nga xam ne moom ndogal bi moo ko topp bu fekkee aussi itam am na ñoo xam ne mën nañ ko cee jàppale surtout ñi nga xam ne ñoo jëloon xar yi bu nekkee mënuñ ko réduire ak loolu fekkee mënuñ ko réduire itam day fay donc peut ñu dawal yërmande